jërëjëf sëñ bi ñu ngi leen di siyaar bu baax te am mbégte lool ci teew ci bis bi nga xam ne nii moom lañuy def ngir fàttali fàttaliku yaar gi nga xam ne ni moom la fi sëriñ bi jaaroon te yaxal ko ci ay xasidaam Modou Fadal yi ci njiital sëriñ Saliou mu sëñ moo bu sa Dieng sëñ mu sëñ sëñ Bassirou sëñ Fallou sëñ Sonia bu sëñ Abdou Fatah ak mboolem jabaru sëñ sëñ Fallou gi yëpp waaye tamit teewaat fi ngir uh, waa Touba ci kanam ci njiital soxna Bintu Mbacke mu sëñ Abibou ak sëñ Baytel ak mboolem ñu nu àndal ñëpp fekk su fi ñu yor Touba Ca Kanam fii muy ñoom si Ibrahima Sarr ak mboolem mu ñu àndal ñëpp euh, ci njiital tamit sëñ sërif mu Cheikh Mamadou Fadal moo jiite bi waa sëñ Fallou yi ñu ñëw fii teewal fi sëñ Abul Baraka mu Cheikh Mamadou Fadal euh, ci fekk fi tamit soxna Kunta mu seex Mamadou Fadal nga xam ne mooy suñu kilifa ci lépp di nuyu tamit sëñ Sidi Mbacke mu Cheikh Mamadou Mourtada ak mboolem kuréel yi nekk fii ak mboolem kilifa yi nekk yëpp ñëw gi nag weesuwul lenn lu ñëw xeeñtu jaar-jaar yi nga xam ne moom la fi sëñ bi defoon ndax bokk na ci barab yi nga xam ne nii fi la sëñ bi am ñeenti te li ko fi indi woon sabab yebba eh, ñu bëri xam nañ ko te mooy ginnaaw bu seetee ne way sem koro bé lisi na kafar yus bi toog aw yàqtaloog aw yoxor jóog googu alxuraan waxoon ginnaaw bu ñu jéemee eh, éliminer sëñ bi physiquement te jàppandiwut fii moom moralement lañ loo taxoon ñu indi ko fi te mooy gis nañ ne nit ku nii man naa am dana am complexe ci nit ku weex ci wàllu xeeti xam-xam ak yu ni mel waaye bi ñu indee fii sëñ bi li ci sëñ bi wax doy na sëkk ci ci ay abiyaat yoo xam ne nii yu wuute la xëy na dañuy bañ wax ji gudd waaye di ñaan rek suñu borom dugal ñu ci li mu waxoon ne inna lasina ila sarsara xatasadoo siyaarati faaraxoo daarin aw saara yàlla nañ suñu borom defal njéggalu àdduna ak alaxira eh, ci xencu gi nga xam ne moom la ñuy xencu jéegoy sëñ bi ci Nouakchott fas yéene yéene dem Sarsara incha allahu rabbi di ñaan rek yàlla nañu dugg ci bayit woowu nga xam ne ni moom la sëñ bi ñaanoon mbooleem ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko fu sori ñëw di ko siyaare si na leen suñu boroom dàqale tàqale ak bàkkaari àdduna ak alaxira ba di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha yàgg fi loolu te ànd ak wér ak mbooleem kilifa yi déene yëpp di ñaan ci suñu réew ma Sénégal suñu borom sax jàmm te tàppe xol ya barke Cheikhul ngeen jëf